soxna soosee que sax man bëgg désormais bëggatuma ko la la minimaliste pourquoi la minimaliste parce que dafa am taarix boo xamante ni daf cee am taarix bi mooy ba ñu dalee politique ba léegi parti au pouvoir dem élection élection député daan am cent cent vingt députés et autres tey mu am quatre vingt deux députés ci tey ab tête de liste jiite liste coalition au pouvoir am quatre vingt députés li waral loolu mooy Mimi Touré dafa war a seetaat boppam par rapport ak liste bi mu jiite moo tax parce que nag loolu li muy firndeel mooy taxawaayu bi nga xam ni am na ko li nga am nag li am ba am mooy gars yi dañuy waxtaan ñu fàttali sénégalais yi nag parce que moom dafa wax ni dafa soxla jëlaat liberté kon moom mësul libre nee na mais ñun de dañoo mës a libre moo tax ñoom taxawaay bii dafa soxla jëlaat liberté am waa soo jëlaat sa liberté dañ laa jox jiitu nga jiite liste ñu jox la nga taxawal jiite liste suñ la jiitalee liste nga bëraat jëlaat sa liberté ba dem assemblée nationale soo jëlaat sa liberté da ngay jël da ngay def li président Macky Sall defoon jël passeport diplomatique ba jël poste député ba jël kër gëñ na jox jël lépp delloo ne yéen a ma ko joxoon yéen a tax ma dugg biir assemblée nationale parce que eh su comme président Macky Sall defaloon tête de liste Mimi Touré du dugg assemblée nationale looloy parce que nag lu tax ma ne du dugg assemblée nationale parce que biir bureau de vote am dañ ko faa làpp centre de vote am dañ ko faa làpp bi mu dëkk dañ ko faa làpp donc su demoon élection Kaolack du fa gañe kon du nekk député donc daf ko war a gërëmee santee ko président Macky Sall soo demee nag ba bëgg ko woon gannaaw da nga koy delloo li nga moom loolu mooy benn ñaareelu mbir bi mooy nee na APR am na cadre bu taxaw pour bi bu nekk biir palais nu mu ko tuddee sax ah comité d'invective moom moo ko xam moom moo xam luy comité d'invective et d'insulte moom moo ko xam parce que moom moo ko jiite woon ba ñu nekk opposition moo ko créé woon jiite ko en 2011. comité lan nee na am na député bu ñu teg comité pour dindi ko ci bopp assemblée nationale. comité miné hors de l'assemblée nationale. ay dans ses dans ses rêves parce que député yaa ngi nii faale ko sax ñoom dañu am base de ñii dañoo am base dañu gagné seen commune. faale ko ay jigéen yoo xam ne ñoo ko fulla ëpp ko fayda fuuf ci biir alliance pour la république te lépp lu mu am rek président Macky Sall moo mu war ko ko gërëmee nag sant ko ko xam nga lu fi ne mooy li ko metti mooy li tax dégguñu ko ci bopp assemblée nationale. e lu tax ñu jël ko nag jox ko Amadou Mame Diop ñii ñoo ko rappelé de 2008 ba ñuy créer suñu parti Amadou Mame Diop mi ngi fi di jàppale parti bi tournée président yi mu def de 2009 ba 2011. Amadou Mame Diop moo doon accueillir le président au niveau de Richard Toll ak département ba di ko fa àndal ba kenn bañee ñëpp bañee moom moo nangu nekk maire à deux reprises am base politique trois fois député kooku su amee waaye saa yi doo ko jëndee koo xamante ne nag waaye su gañee sax su gañee c'est parce que ñëpp booloo jox ko donc par rapport à cette question là loolu moo fi nekk légitimité politique légitimité la ak base politique doo ko teg nag ci ay poste de nomination boo xamante ni président yow loo fi jiite rek Macky Sall la ko jox moo la jox coordonnateur du parrainage moo la jox ministre ministre de la justice moo la jox président au conseil de collectivité territoriale moo la jox Mimi mën naa mën naa waat ni saa yu geddee rek wax ci troisième mandat dañ ko dàq bañ ko dàqee conseil économique social ci la wax ci troisième mandat bañ ko dàq bañ ko joxulee bopp assemblée nationale ci la wax ci troisième mandat musul gëm musul bañ ñàkk d'accord ci troisième ci deuxième quinquennat saa yu meree rek def ko donc loolu mooy taxawaay bi ñun newuñu ci nekkuñu ci débat yooyu loolu laa bëggoon wax maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam. ki nga xam ne ñoo ñuy seetaan man la honorable député Ania nga département de Linguère euh, fi may njëkkee rek mooy Mimi xanaa dafa yaakaar ne moo gën ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ nekk ay jigéen comme moom nekk ci parti bi. assemblée nationale cër bi ko président Macky Sall jox du gule ci ay cër yi mu ko joxoon bi mu koy jox ministre bàyyi na fi ñoo xam ne. mérité ne woon nekk ay premier ministre mu jox ko te boobaa ñun ñëpp dañoo àndoon jàppale ko ci ci mission bi ba yàlla jeexal ko bi ko président Macky Sall di di ko joxaat mu jiite tamit législature bi député yëpp a mérité taxaw assemblée national jiite ko kon ragal naa ne kon post moo ko tax génn di wax te troisième mandat bi muy wax ak yeneen ak yeneen bi muy dem campagne lu tax question boobu li ma koy laaj lu tax waxu ci woon li may wax ci assemblée mooy yàgg nañ fa treizième législature def fa liggéey bu am solo defuñ ci xeex xuloowuñu président mack Macky mu suñu woo lu dul digal ñu assemblée de leen fa wax ay xalaat di fa andi lu lu réew mi soxla bu leen xuloo bu leen xeex kon ñun jàpp nañ ne duñ fa complot duñ fa sonal nit lu dul réew mi moo ñu ñor ci loolu la ñu dox beneen bi may wax benn nit bu dem ak fukki nit yu dem yaakaar naa ne ñun député yëpp li ñu ñor mooy wëyal li nga xam ne gouvernement bi mi ngi koy dox mu jarit askan wi yaakaar naa ne kon bloqué dafa am ku yaakaar ne mën ngaa bloqué budget bi nga xam ne moo jëm ci askanu Sénégal yaa ngi nax sa bopp bu fekkee mën ngaa tere Sénégal wëy ragal naa ne ñu ngi la fay xaar te président Macky sàll yàlla dote na ko benn nit boo xam ne ku yërëm aw askanam la te ragal naa ne ñoom waruñu leen cee jiitu beneen bi mooy am na ay outils yoo xam ne mën na ko permettre mu gouverner sans mu jël xel xalaat ak ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a réew mi muy député de l'opposition balaa ngeen def honorable wax naa ko léegi soxna si sama sama discours. li may leeral mooy assemblée nationale liggéey ba ñu fay wëyal ragal naa ne benn député amul sañ-sañu. bloqué budget wu assemblée nationale budget wu état du Sénégal ba ñuy jébbal muy ministre yi boo ko amee bu boobaa président Macky Sall am na ay canaux yu mu mën a utiliser pour gouverner tranquillement kon ragal naa ne amul amul départ am bi te leneen li mooy dis euh, sortie bi jàngaluñu dara amul lenn lu ñu Mimi jàngal Mimi yóbbu nañ ko Grand Yoff ñu dóor ko ba mu tëdd mu jóge fa yóbbu nañ ko Kaolack ñu dóor ko ba mu tëdd mu jóge fa sagal bi ko président Macky Sall sagaloon jox ko ndombal tànk ñu ànd ak moom di ko jàppale waroon naa amul ngor goo xam ne buy génn tey jii di dem naan non inscrit mu jébbal député gi nga xam ne parti bi moo ko ko defoon loolu mooy courage politique man damay def kon ni nga xam ne président Macky Sall defoon na ko jéggal lépp wan ginnaaw lépp daal di dem sumb yoonu boppam kon dama koy laaj lan moo waral moom mu téye téye ci député gi ba léegi. léegi pour a décidé de ramener taxawaay bi ñu ciy am mooy liggéey ngir njariñu réew mi rek ñun député bi ñu ko falee aw askanam moo gën a tax ñu fal ko moom bu jàppee na mën naa def leneen loo xam ne du njariñu askan wi ñu ngi ko fay xaar. nee naa la Mimi n'est pas plus méritante que ñun ñi nga xam ne ay ay député lañ nekk département gañe suñuy base en 2017 man dama gagné département de Linguère ma ñëw ba jusqu'à présent est-ce que mas ngeen gis ndombal tànk bu ñu ma jox affaire ci biir au sein de l'Assemblée est-ce que gis nañu ma mës a xëy xuntu ne man lii laa war a am parce que problème nitu confiance ki la wóolu boo jëlee ne yaa gën ñëpp yow yaa war a am kenn du am ay intérêt moo la fi teg te ragal naa ne réew mi toll na foo xam ne waroon na jege président Macky Sall xool nan la ñuy def ba askan wi fii ñu toll ñu gën a àndandoo liggéey mais pas pour génn di wax ay ay ambition di wax parce que Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Mimi moo toog moo toog pale sama sama naataangoo bi moo fekkee audience pale bi dana ci ñëw wax ne moom lu président Macky Sall wax xaarul ci moom dara lu président Macky Sall wax kum leen wax moom la ñuy tànn kon su taxawaatee na président Macky Sall moo ko dig assemblée nationale loolu nekk na ñaari wax yu yu wutee ko fekkee woon danañ ci ñëw xaaral ma may. Dia Mariama Sarr membre de la convergence des cadres de l'APR coordonnatrice de la plateforme de femmes benn Benno Bokk Yaakaar et de la mouvance présidentielle conseillère départementale arifice Rufisque conseillère municipale à la commune de Sangalkam dañuy sant président Macky Sall ci tànn bi mu ñu tànn tànnal docteur maam am ah, Amadou Mame Diop def ko président assemblée national bi mu ko tànnee ba léegi nag ci la jàmm jeex ci suñu sœur Aminata Touré ex premier ministre depuis lors nag. wax ju ñaaw ju nekk wax ju déplacé bu nekk mu ngi koy wax jëmee ko ci président de la république lii nag lu ko waral mooy tànneef bi mais président bi muy tànn aussi dafa xool ki ko doy ci côté bu nekk muy docteur Amadou Mame Diop teg ko fi ci loo xamante ni dafa doy ñëpp wante xeex boobu amee Aminata Touré wéet na si lool lan moo waral wéetaay bi parce que tegu ko fu mu ko war a teg déjà moom amul base politique te maa doon moom mu remercier le président Macky Sall ndax xam na ni amul base mais terewul tànn na ko bi mu ko tànnee aussi nit ñi kenn amul luñ ciy wax dañu ànd ak moom malgré nag loolu fal nañ ko benn yoon ministre de la justice fal nañ ko premier ministre fal nañ ko présidente euh, conseil économique social et environnemental fal nañ ko mu nekk représentante spéciale président de la république te kenn mësul ŋaan kenn mësu koo kaas dañ ko jàppal li mu nekk rek ndax président moom moo ko doy mu tànn ko wante li mu tànn tànn noonu yëpp kenn kaasu ça ne ka dafa dàq jàng nit ñi wala daf leen dàq politique wala daf leen am base politique bu nit ñi amul nañ leen ko laaj moom fan mooy base ay kàngam ñoo nekk biir APR ñu ko gën a jàng ñu ko gën a liggéey ñu ko gën a am mérite mais puisque président moom la tànn nit ñëpp dañoo takk seen digg laxasaay muy góor muy jigéen mais surtout jigéen ñi ànd ak moom campagnal ko teeru ko nangu choix boobu nga xamante ni son excellence moo ko def parce que après tout nag moom mooy borom cëggal guy gi nga xamante ni lu mu def kenn amul loo ciy wax ndax moom mooy président parti APR. Aminata Touré nag dafa baaxoo benn affaire dafay gedd dafay euh, tëkkuwaate saa bu ko dara arrangé wulee rek mu génn daf def na c'est par la première fois mais bu ñu sañoon dafay arrêté lu muy def. ndax gënu fi kenn lenn ëpp fi kenn lenn sur le plan politique mais terewul ñu ngi muñ lu ñu neex ak lu ñu di ànd ak moom ndax lan xoolee nañ ko président de la république son excellence Macky Sall APR nag comme ni ñuy wax nii mënul wax lu ñu metti mënul wax lu ñu jaaxal xëy na nag da koy wax pour judduwaat beesalaat ginnaawam si diggu gin si kaw APR waaye nag xam na ni contable na ci lépp lu nga xamante ni président Macky Sall def na ko te muy lu nga xamante ni muy projet muy réalisation ak lépp te nag moom tàmm na fa mu toog tamit di ko tagg parce que xam na ni président li muy def mu ngi ci yoon bi et c'est un bon visionnaire. dafa bëgg nag dugg ci biir xeex politique bi nangul nañ ko ko waaye li ma ci jaaxal tekkiwul ndombal tànkam de dafa ne toujours mu ngi biir APR te mi ngi nekk toujours député. waaye nag comme ni ñuy wax nii bu fekkee dafa bëgg xeex xeex bi neex day bàyyi lépp man bu ma bàyyi sa lenn damay bàyyi sa lépp gën a taxaw ci biir langue politique bi mais nag dañ naan xanaa tey ndax yàq na fi lu ne opposition kon defe naa si ñëmu ñoo ñu xam nañu seen bopp te dinañ préparé it xaar kuy lekk nag la loxo bi lay jox ngay lekk defe naa ne kooku moom keneen ku nga jëm moo war laa jox ngay lekk dina la xoolaat bu baax dafa démissionné nag APR indirectement na engagé wu nag parce que lu ñu wax duma ma lekk ci ndab li dinaa ci xëpp suuf loolu amul fenn da ngay nekk wala nga bañ a nekk rek waaye président Macky sàll moom mooy koo xamante ni nekk ni kilifa kilifa gu mat taxawaay te lépp lu muy def rek dina jël responsabilité am taxaw jàkkaarloog ak waa sénégalais te xam ne rek bés a ngi ñëw wax dina am te bu boobaa dina xam nu muy waxee ak nu muy jàkkaarloo sénégalais yi ci loolu nag. ñun waa APR waa benn Bokk Yaakaar ak waa mouvance présidentielle ñu ngi wanal suñu dëggu suñu jàpp suñu confiance président dal suñu xel ñu pare nag fas ne ko gunge nag te lu mu laaj dañ koy defee defit ndax moom mooy suñu président moom mooy suñu choix et en plus de cela non seulement muy choix parti ak mouvance mais muy choix sénégalais yi tamit ñuy sant docteur Amadou Mame Diop mi nga xamante ni président tànn na ko waaye kooku balaa mu koy tànn dafa nekk maire ñaari yoon am ñetti dé ñetti falu ndombal tànk député toogee toogay bu bu bu am solo toogaay bu am solo sur le plan international ndax bu dul dara euh, nekk na euh, chef de délégation député yi ci sous-région bi nekk na vice-président comité comité international interparlementaire de l'UMOA pendant juróom-ñeenti at nekk na ko juróom-ñeenti at mu yore ndombal tànk boobu nekk na tamit président par intérim parlement UMOA ñu ngi remercier nag ak di féliciter di tatagal suñu frère le premier ministre Amadou Ba ak membre gouvernement bu mu àndal yépp ñi nga xamante ni locomotive bi lenge bi ki ko yore mooy président Macky Sall son excellence ñu dal ak jàmm liggéey te nag actuellement li ñu ñor mooy li yëngal sénégalais yi mooy préoccupation seen soxla faj soxla sénégalais yi ngir ñoŋal gouvernement Macky Sall lool moom ñu yëkkatee wasalaam.